président nee na salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa bi ñu delloo sant sunu borom. dañuy yëkkati d'abord kàddu njaal. ne dañuy yëkkatu kàddu njaal. bu ànd ak suñuy ñaan. ne bu ànd ak seeni ñaan. ndax li ci ëpp solo. ndax li ci ëpp solo. mooy sàkku ci suñu boroom. mooy sàkku ci suñu boroom. suñu wayjur woowu jiitu ji. suñu wayjur woowu bàyyi koo te ñu xamoon cofeelam ci ñun. te ñu xamoon ak cofeelam ci ñoom ñii toog. ne wax la lu ma ci fekk rek nangu naa. ne mais kii duma ko bàyyi mukk. ci tolluwaay yooyu. nee ci tolluwaay yooyu. dina am lu muy jeexital. nee dana def ay jeexital. ci ku yàlla bëgg a dimbali. ci ku yàlla bëgg a dimbali. mu sant boroomam ci li mu ko defal. nee mu sant boroomam ci li mu ko defal. te loolu mu ànd ci ak xaritam bii di jox. te loolu nag da cee ànd ak xaritam bu baax bii di Adja Dior Diagne. mais di doomu di jaayam di xaritam ñoom ñaar nee yéen ñaar ñiy toog ca xat-xat ba ca xat-xat ba fekk nañ ma prison fekk ngeen ko prison mais oh. li ngeen wax léegi fii ci kër gii fii ci kër gi ak dëj bi ki mu concerné ak dëj bi ki mu concerné ak ni ma demee woon ak moom. ak ni mu demee woon ak Adja Ami Sow. am ci loo xam ni. nee mu am ci loo xam ne. transfert de cofeel. nee loolu transfert de cofeel la. ndax xam gu mu xam cofeel gi doomam am ndax Adja xam gu mu xam cofeel gi Adja fi muy am ci Idrissa Seck. yàgg bëgg. transfert de loolu transfert de cofeel la. ndax xam gi mu digganteem ak Badara Niang ndax ndax xam ji mu xam Fara Ndiaye digganteem ak Badara Niang ak. opposition boo delloo ci opposition. jox ma statut chef de l'opposition. mais jox ko statut chef de l'opposition. wante ci biir waxtaan. mais wante ci biir waxtaan. ak gindikoo. ak gindikoo. ak dundalaat yéene yu njëkk ya. ak dundalaat yéene yu njëkk ya. ba ñu bees. ba ñu bees. mu ne ma waaw. mu ne ko waaw. booleeg Covid bi. booleeg Covid bi. lëmbaaji àddina bi. bi lëmbaaji àddina bi. booleeg li xew ci suñu continent bi. booleeg li xew ci suñu continent bi. ndax du ñu faf bàyyi. mais ndax du ñu faf bàyyi. waxi chef de l'opposition. waxi chef de l'opposition. te ànd te ànd. nañu àndee woon. eh oui sàmm àndee woon. la ilaha illallah. li ñu xam. ñu boole ko ñu boole ko. def ko benn def ko benn. suqali Sénégal suqali Sénégal ndeysaan. puisque responsabilité bi ñu ci am. mais gis responsabilité bi nga xam ne am na ko Sénégal. yemul ci mais yemul ci ñun donc. ki dëgg la de. parce que ñu bàyyi leen xel bàyyi leen xel. protéger leen. suñu responsabilité responsabilité la. ñu ànd dëgg la de. du waxu mbooloo. nee am na yoo xam ne du waxu mbooloo. dañ lay dàq. Mhm. mu ne Idi président Idi jaral na. maa la ko de. dañ lay simmi mu ne président Idi jaral na. dëgg la ci réew mi mu ne waaye guddi yooyu ñun yow ñoo ko bokk. maa la ko wax de. suba guddi bëccëg xamatoo dara sa bureau sept heures bi matin ngay ñëw bu ñu convoqué kii mu wàcc si ascenseur bi sa buntu kër lañ lañ taxaw nga jël suñu. nekk ak ñun foofa guddi ba bët set. Jordani soxna sii fi ne. mais Jordani soxna sii fi ne. di première bis bi. di première bis bi. ba ci sarax si. ba ci sarax si. luñ fiy lekk. luñ fiy lekk. luñ fiy naan. luñ fiy naan. luñ fiy jëfandikoo. luñ fiy jëfandikoo. maa koy def def. kon loolu nag rafet na. mais kon loolu rafetlu nañ ko. ñu ko ñu seereel la ko.